jëre ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme nuñ leen koy defalee saa su ne sëñ Basiiru ñu ngi fii ci Ngor seet si fi kenn koo xamante ni bokk na ci champion yi nga xam ne ñëwoon nañ fi barki démb moo njaay yàggul muy xeer Ngor numéro de dox ci diggante combat am ak boo yëmbal sëñ Bas laataa loolu dafa am loo xamante ne dafa xew ci diggante bi ndax kii di boo yëmbal keroog ba muy génn ci stade moom la arbitre bi jox li nga xamante ne mooy ndam. waaye booy kii di xeeru ngor numéro de daa mujj dugal recours recours ba nag moo génn CNG de lutte bi jox kii di xeeru ngor numéro de ndam mu sedd guy ci kaw boo yëmbal xeeru ngor ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay fay di wax ne auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi sant sumay ñaari waajur di sant sama sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima a radiyallahu taala anhu di nuy waa Ngor gépp di nuyu waa adduna képp kuy bëggee xeeru Ngor rek maa lay nuyu sa tur sa sant. nga bëreeg euh, nga bëreeg nu mu tuddati boo yëmbal ngeen bëree yéen ñaar nga am ndam ci kawam keroog ba ngay génn ci làmb ja amoo woon ndam waaye lu gëm-gëm bi nga amoon mooy tôt ou tard bu ñu demee CNG de lutte bi dina ma jox ndam verdict bi génn na ba mu génnee noo ko yëgee. waa sant yàlla sant yàlla di wax ne ñu nag ñu parce que xamoon nañ ne daan nañ ko parce que ñun action bi mu amee rek avant kenn di wax ñun xam nañ ne daanu na parce que am na loo xamante ne souplesse su nit mënul mel noonu am na loo xamante ne boo amee mënoo am dara loolu téye lu dul tegoo sa fees te def naa action boo xamante ne gaaw na gaawaay boo xamante ne pour être bët mënu ko gis mais ku yàgg bëre wala ku xam bëre boo gisee action bi di nga xam ne boo yëma mënut a jàllale xeer nga tegul fees aman amoon na amoon naa yaakaar bu baax a baax xamoon naa ne daan naa ko eh, samay entraîneur ak samay mbokk ñëpp ngor gépp xamoon ne daan naa moment bi nga ko daanee ba nga dugal recours ba nga demee CNG kañ lañ la woo wax la ne verdict bi génn na ak bi nga ko dugalee léegi ñaata temps la def. waaw su ma juumul ñu ngi bëri le 21 euh, mu waroon samedi sa mardi balaa dugal recours bi euh, euh, tey tey mooy la 14 def na presque un mois léegi mu jege ko mais nag dañ toog di xaar rek te xam ne tamit CNG bi seen liggéey ñuy def te liggéey bu lu si nekk daa am àpp boo àppam rek ñu jox ñu tey lañ ñu woo ama xamal ñu ne recours bi génn na CNG jox nañu victoire PV bi envoyé nañ ñu ko am nañu doon contesté rek naan waaw loolu amut mais tunganul teew nañ taal daal yor nañ suñu PV envoyé nañ ñu ko ba mu leer waaw te dinañ leen ko tegal ngeen gis ko tamit ñëpp xam ne am nañ ndam si kaw boo yëmbal ndam lu seddaguy daanaka nga am ni ndam ci kaw boo yëmbal ban relation nga am euh, euh, particulièrement ak waa waa làmb rawatina waa CNG bi non waa CNG aw ma ñoom benn relation lu dul jàmm ak respect parce que suñuy papa lañ ñoom ñun lañ fi nekkal ñun tamit ñoom lañ fi nekkal parce que bu fi CNG bi newul woon làmb ji du tegu si yoon bu fi mbëri nekkul woon tamit CNG bi du fi nekk donc dañoo bokk benn collaboration koo xamante ne ku nekk dafa am rôle mu siy joué ñoom ñu am role pour di ñu ñun tamit ñu am rôle pour topp seen ginnaaw di leen déglu loolu la rek ñu jox leen cër tamit te xam ne arbitre ay doomu aadama lañ kon ni ma ko doon waxee dañoo juum te juum te moom jombul jaam xam nga arbitre bi juum na bi ñu xoolee xam nañ ne arbitre bi dafa juum jox nañu lu moom dañ si sant yàlla rek di wax ne du suñu njàmbaar du loo xamante ne tamit ñu ko liggéey lu ñu yàlla defal la ñu ngi koy sante yàlla bu baax a baax gisuñu suñu bopp dañoo gis ne lu ñu yàlla jagleel la rek waaw nii la nii la mënoon demee daal. nga am ndam keroog bi ngay génn stade jo yëkkatiwuñu sa loxo bi ngay dugg ci oto bi di ñëw fii lan nga yëg ak ban teertu lañ la waroon teertoo ak nan nga ko yaakaaree nu noonu la waroon mën a demee. waa amoon naa lu ma metti parce que ngem bu jugee jugee dëkk dem bëri ji uti ji ngor dëkk bi yëpp topp la waa ngor. su may grand frère yi ñoom salanceur kii su ma la as ñoom père Ibou Diop daj ay coono yu bëree baree bëri rien que pour ma am ndam ñu conseillé ma dem def li ñu ma conseillé am si ndam xam nga ari bi nag def njuumte xam nga ñuy bëriwaat boo yëmbal am chute sama kaw ñu jox ko victoire métti na ma trop mais tamit delloo si naa sama xel si yàlla te xam ne li yàlla na ma si jaam yi mooy am amaana suñu ma joxoon ndam si stade bi mën naa demee neneen si man wala mu demee neneen si samay nit wala nangam tey noonu la ko yàlla dogalee damay jàppana lii mooy li gën ci man damaa jàpp lii mooy li gën man parce que peut-être jour boobu noonu fëgala bu ngor am na ndam man tamit su ma amoon ndam booyi mën nañ tàggalikoo seen sago def loo xamante ne amaana tey mën a nekk loo xamante ne day métti ci ñun ba tey kon bu demee nii dañ koy sante yàlla bu baaxa baax te xam ne lu war a am rek day am lu war a am day am ndam li doon ndam loo xamante ne ndamu ndamu ndamu fii yëpp la ndam li dëkk bi la dëkk bi la ak li li ko wër tey nga jóge ci booy yëmbal drapeau bi noo ko gisee day ñëw wala day mujjee reste nekk ci booy yëmbal. waaw drapeau bi moom aw ma lu ma siy wax du bari parce que PV bi génn na moom xam na ne daan naa ko jox nañ ma verdict su ma joxee drapeau bi ma jël su ma ko joxul ma may ko ko mais sama palmarès xeeru ngor nañuy bind ne moo daan booy yëmbal. te man maanaam du ma ko si reposé dara du ma ko si wax dara su amee xelam jox ma ko ma jël su amul xelu jox ma ko ma may ko ko si xol bu sedd guy barke Baye Niass du ma si xëccoo. billaay wallaay tallaay. est-ce que bi nga xamante ne ñoo tëgg làmb wala CNG yi nga xam ne ñoo yilif làmb ji bokk ni ñu yilifee làmb bu mbër bëree recours am ñu dem jël jëli drapeau bële ci adversaire bi indil ko ci ki ko daan. waaw loolu mooy yoon parce que pour man boo daanoo ba ba ñu xool ko ne da ngaa daanu pour man amatul dara loo xam te ne war nga koo mën a prouver amaana moom dundul ko dundul dundul maanaam loo xamante ne ku daan loolu lay dund parce que jox nañ ko drapeau am dem na feetu dem na jubilé moom tànn béer bu si moom la gën saf ko si man mais man lañ jox ndam fi ñu toll nii moom su dee ne am na dara loo xamante ne war na ko am si yaramam mu yëg-yëg daf ma war a woo téléphone yónnee ma drapeau bi wala mu indil ma ko parce que loolu mooy li nga xamante ne moo gën a rafet mais nag forcé wu ma ko ko dafa dama wax li nga xamante ne rek su doon man man loolu laay def mais su ko deful tamit man du ma ko si reproché dara mais adduna yëpp xam nañ ne maa ko daan te fañ toll ni sama douze combats yi ma yi am dañ ko siy bind ne xeeru ngor moo daan boo yëmbal donc aw loo loo xamante ne dama ko siy wax si loolu daal. keroog nga ñëw ci combat Bébé Bismi Ada samp ndënd tibb suuf sottee sotteekoo lan la. waa yaram bi mooy xasan. kan lay xasan si ñëpp parce que ñun ay xale lañ. làmb lañ opté man liggéeyuma dara su ma fekkoon tey bi ma yeewoo damaa ndékki rek tëddaat sama lal dem entraînement ñëw tëddaat sama lal te maa ngi nii entraînement laa ñëwoon nii su ma jugee entraînement ñëw tëddaat sama lal làmb laa opté maçon bi bu amee sance bu jeexee day ñaan yàlla amaat beneen chantier keneen ak keneen noonu man làmb mooy sama métier man di ma dalee bëri bële mosuma bëri benn yoon si benn saison chaque saison damay bëri ñaari yoon ba ñetti yoon parce que loolu mooy sama métier te nit ki métier am bu si jógee rek nekkatul métier am man dama gis ne chaque jour damaa war di bëre instant yi dama pare pour bëre ak samay morom moo tax ma dem stade xëppoo suuf parce que bàkku naa kenn tëkkuuma taal naa samay loxo kenn tëkkuuma dugg naa si géej bi xëppoo suuf kenn tëkkuuma lu ñuy moytu defuñu fi lu ma deful douze combats def huit victoire ku ma bañ dag maa ragal na ñëw ñu bëre te waxuma ay booy yu ndaw ponkali na ñëw ma wane ne si man. combat euh, Ada Fass Bébé Bismi lan nga ci gis ki daan nga soxla wala ki daan. non Bébé Bismi moom làmb du ma boole moom parce que euh, am na loo ñu séq loo xamante ne moo moo gën a fort làmb ma moom. mais nag Ada duma ko laaj du ma laaj Ada duma laaj keneen ak keneen parce que am na yu sew yu ne si biir mais ku si pare pour bëreeg man pare naa pour bëreeg yow. yu yooyu lan la. maanaam am na connaissance bu ndaw bu ne si biir. ban connaissance lamb daa am connaissance lamb mayante xaalis la. waa parce que dama doon tëgg mbapat mu daan ñëw di ma bëreel. Ada tëggoon naa mbapat mu ñëw bëreel ma waaw. am na benn relation bu ndaw bu amoon suñu diggante. amaana nag mbër boo ñëwee tëb a tëb laaj ko day mel ne dafa toll foo tolluwul Ada Fass maa ko ëpp ay combat maa ko ëpp ay victoire c'est comprendre li ma bëree bëreew ko ñi ma bëreel bëreewut ak ñoom duma ko laaj nag reproché wu ma ko dara tàllalu ma ko loxo mais su bëggee bëreex man man par naa pour bëreex moom su bëggut a bëreex man tamit alxayri ma dem bëre keneen. kon keroog li mu daan bébé bis mi metti na la boo yoroon ndam li bébé bis mi nga koy jox. waaw a parce que du toog bés bu ma wala mu nemm ko mu wax ak man kon su ma doon ñaan ndam Ada laa koy ñaanal mais nag yàlla mooy xool ki ko neex mu may. ñaanal waaw. parce que Bébé Bismi Bébé Bismi dama juum yàlla mooy xool ki ko neex mu may ko ndam Bébé am na lu ñu bokk man ak moom ndijaayam dafa nekk fii sorewul sama kër ndijaayam am sama benn garaawam te ne maa moom ñooy ànd guddeeg bëccëg mu doon sama mag deret rakkaam mooy yor bagage Bébé mi kon kooku laam mënumaa boole moom damay wax rek pour mu leer Ada Fass amoon nañ benn connaissance nii mais seexuñu benn relation boo xamante ne war na mën a tax duñ bëre waaw jàmm lañ seex xam nga su bëggee bëreeg man ma bëreeg moom su bëggut a bëreeg man aussi yàqaluma dara sama yoon parce que bëri naa ba tollu fii te bëriwuma ak moom garant combat laa mujjee bëre te jóge si ndam donc aw ma lu may jóge samay ndam yu ma tegle jóge ma lu may xel ñaar naan kii wala kële ku ma làmb booleel mu doon loo xamante ne day neex amateur yi man loolu laa bëgg mais du ma joo xamante ne dañ naan diw moo man wala nangam man dama bëgg ay combat soog comme sama combat boo yëmbal ñu naan wala ñaar ñi kam moo war a mën a daan loolu moom may neex daal. promoteur bi tëggoon làmb di petit production mu ngi lay contacter wala yeneen promoteurs yi ñu lay contacter est-ce que bëgg na nga bërilaat ko. waaw petit bëgg na ma bërilaat ko bëgg na bëri bërilaat ko te man bëgg naa ko bërilaat parce que pare naa pour jàppale ko jàppale mbër si promoteur nag mooy bu la tëggee nga mobiliser. te xam naa ne bu ma tëggee dina mobiliser ndax tëgg na mobiliser xam nga maa ngi koy ñaanal li mu mébét mu am lu ko raw parce que xale la da dóor ñëw si làmb ku ne xam na ni làmb méttee ku ne gis na tamit làmb coono yi si ne xam nga gars yi dañuy jël ay làmb di si fay ay mbër xaalis bu bari te duñ mobiliser sax xaaj bi kon ñun su nekkee ay tout tànk di mobiliser talal ñu benn loxo promoteur nag pour ñu jàppale ñu parce que dañoo confirmer luñ ñu war a mën a ñëwee tëgg eh, waxuñu kenn ñëw tëgguñu dañoo wane lu tax ñu war ñoo mën a tëgg mais petit moom man ak moom li ñu séq du làmb rek waaw du làmb rek am na ñu naan daf ma foraloon si combat boo yëmbal li mais loolu du débat du débat mais man ak moom daal li ñu làmb barke alxuraan. ndax loolu moom wax bu waxu la boo xamante ni wax bu teguwut la ndax promoteur moom yaakaar naa bu fayee mbër mi fay mbër mee li am solo ba am njariñ mooy mbëri bëri faral naa kii faralul diw faral na diw yooyu yant ak petit nag xam naa ni làmb la làmb ngeen séq bu la dul woon fay doo ko bëreel tey ku ci nekk sa intérêt daa nekk ci moom ñu lay tàggu rek xam naa ne waxtu bi ñu amoon ci waxtu jot na lan ngay tàggoo. waa duma tàggoo dul yàlla julliwaat ci bi. di santaat suma sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu di ñaan yàlla yoo ko ay leeram di sant waa Ngor gépp nag su ma waxee wàngoor Ngor ma kenn monsieur le maire Amadou Gueye ati sama papa docteur ña borom suma assistance defal na ma loo xamante ne fooguma ko woon di ma jàppale pare pour jàppale ma sama carrière bépp maa ngi koy sant bu baax di sant sama ndijaay Antou Gueye Samba xam nga sant sama ndijaay Tara borom Noflaay Bits xam nga euh, sama benn grand bu ñu naan Sahir Kébé maa ngi koy sant bu baax a baax. di sant sama booy yi may àndal criminels yi les premiers cadavres maa leen sant bu baax a baax baax di sant tamit particulièrement waa écurie olympique de Ngor muy entraîneur bi père Ibou Diop ak Salanzeur xam nga maa leen di sant bu baax a baax di sant mbëri di leen ñaanal jàmm kii mooy Salanzeur mooy suñu entraîneur xam nga maa ngi koy sant tamit di ko ñaanal yàlla parce que li mu def ni yombul avant saison bi tijji ba léegi mun si ñun si hivernal yi ba tey boo yëpp am combat mu ngi si nekk du bàyyi benn jour boo xam te ne ñëwut même day feebar sax di ñëw si entraînement yi suñu avancement lu ñu bëggal dañ koy ñaanal yàlla rek moom moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal lu kawe njortaam di sant waa Ngor gépp bàyyiwuma kenn di wax ñëpp ne nañ ma ñaanal parce que man tout tànk laa nekk si làmb toll fu difficile si làmb xam nga war a wane sama bopp te am naa qualité yu ma war a wane sama bopp xam nga di wax nañ ma teg loxo suñ ma tegee loxo balaa juróomi at incha allah waxoon naa ko dama koy waat balaa juróomi at man damay dugal roi des fii si Ngor incha allahu rabbi ama si xel ñaar. kon su lan nga am loo xamante ni waroon nga ko cee wax. waaye li ma see wax moo la sant yàlla di wax alhamdulilah rabbi alamin boobu ba tey six mois ñu ngi liggéey fii pour lépp booy bi grand combat bi mu am pour ñu am si ndam biñ demee keroog stade premier site bi am ba deuxième site bi am wax naa ko am nga fu ñu dem am nga ndam waa CNG daal la ñuy xaar tey yàlla mu ngi def na lépp dëgg mooy mujje waaw parce que combat bi liñ si daj tax metti trop metti na trop bi nit ñi di été fii ñun ñu ngi hivernal te nekk si boor géej gi dëkk si ngor ah ngor été ni muy mel nekk fi mbër yombul ay neex-neex yëpp ñu fi booy dañuy bàyyi lépp dañ ko bañ ba duñ été bi bu ñëwee duñ entraînement fii. dañuy dem fële sa méridien président di fa enterrement ngir laaxatu bëgguñu dara si affaire bànneex parce que yoon wi ñu jëm ndax lëndëm ndax metti il faut yow nga fight sa life parce que boo nekkee xale bu ndaw lépp yomb na la mais kii day bàyyi lépp si si si bunta këram lañ ko def bu jógee si bunta kër bi ñu naan attaay mu dugg si kër gi tëdd konte kooku tànkam sorayul li mu wax nii gëm-gëmam la sa bi muy bëri ay mbapat chaque jour daa gëm ne moom dina bëre ji grand combat loogu la gëm te man li mu gëm loogu dam ko siy jàppale man dama doon bëre booy commencé bëre man ma bàyyi bëre parce que dama gis ay talent yu bëri ñoom toujours pare ñoom birigal ñoom xeer ngor 1 xeeru ngor 2 booy séeréer yi booy yëpp a fi ñoom bas yi booy yëpp ñu ngi si di entrement ma jàppale leen pour ñu avant am avancement rek xamoon na ma ne bés bi moom bu CNG dafay liggéeyam ndam rek la ñuy am parce que site bu njëkk bi. dam ko ko wax ne nit mënul jàllale nit te tegul tegul amul appui si suuf ma ne ka bul jooy bul wax dara zibileel ndam lañ am moom gëmul loogu sax parce que parce que xolam xaalam jog na ma ne ka zibileel billaay CNG bu defee liggéeyam li mu ko doon defee ndam rek la ñuy am tey bés boobu moo ñëw nii te parce que combat bi da si sonn daa bàyyi lépp booy tamit bàyyi lépp mais kontaan nam si moom yéen tamit. kontaan nam si yéen parce que lépp dëgg gi leen a wane parce que ñëw ba fii interview mbër mu mag mi mu wax si victoire bi loo buñ ko doon wax si internet be yëpp du feeñ waa journaliste yi déplacé wu ñëw ba fii laaj la si combat bi ah lépp kontaan nañ si yéen kontaan nañ bés bi moom kontaan nañ si torop sànq bi ma ñëwee mun a ma jox nañ ñu ndam li dama gën a soulagé wu parce que bu ñuy entrement fii daa am chaque jour lu ma koy wax jàppal ne amoo défaite parce que mbër bu amee defet day metti pour mu wàcc waat day yomba ma ne lépp bañ mu wàcc rek mais tey gi gën na maa kontaan quoi. jëre ngeen jëf mbokk yi kon noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu làmb jaa ngeen jëf.